The Court of Appeal of Lambanis businessman Mohamed Ibrahim Bassi on Thursday has on Thursday suffered a blow before Justice of Court of Appeal who dismissed the suit. The Lambasi businessman was challenging the adverse finding made against him by the Jani Commission. waaw ah. Jani Commission ay mbiram ba léegi euh, yëf yi jeexagul gaa ngi dem ci yoon bi because um, ñoom seen euh, white paper recommendation si government buñ ko euh, waxee ba léegi am na ñu ci àndul nangu seen alal ñeneen ñi ñu fara fay ci nuñ ko nuñ doxale woon ak former government bi moom yóbbu xëy na dafa àndutoon mu yóbbu leen ci code bi code bi nag dafa dal di euh, loolu neen nee na daf ko daf ko daaxalu nee nañ moom daal li li moo sàkku àndoon ci moom Mohamed Bassey ndax ku ku doon topp jaane euh, commission xam nga ne waxam si turam si woon na toroom ci commission bi ci luñ ko doon tuumal moo def lii def na lal ak yu mel noonu. waaw moom affaire moom ku ku siiwoon la jamono boobu. Mm. te mu nekk ko am ne donc ku invest la fi Gambie. boo boor yi Bandiraa ba foofu noonu yëpp li fi nam la comme fu gasoil bi day wàcca essence fu mu day wàcca mm-hmm. invest na fi dëgg dëgg ku xalal bu bëri def na ko si te bénéf réew mi tam bénéfice ne si bagaasam yu bëri xam naa ne loolu tawaa jaana kon bokkoon na si ñu si gën a sonn tam xam naa ne si ñu gënoon a jege président bi tam la bokk mm-hmm. waaye am na lu bari lu nga xam ne tam nag jëriñ na ko réew bi waaw definitely mm-hmm. waaw parce que compagnie bi dafa am doole trop te time doon na tax sax you know manqué euh, yu bari ci Gambie fii soo gisee du daan am daanaka taxawaayam def si bokkoon moom moom waaw ah, wax bi rek. <laughs> non bii moom kay amul xaaral a government suspend aw ma. Euh, waaw onion importation. comme mooy soble bu ñu diggante bës dafa ñor. ah mun naa am loolu la. Ah, mun naa am suñu bës ñor na. mun na am daal mooy loolu. waaw mun na am loolu la rek. <laughs> waaye suñu tableau du dee ñor time bi de. ah, ah. ñoom daal suspend nañ ko léegi te tabaski baa ngee ñëw. Ah. loolu lañ gën a soxla. soble moom am dana ci am solo. te dina ci am ak pompiteer yi nii. waaw gis nga waaw joolaa yi xam naa ñu ngi yàkkamti affaire yi. waaw léegi nag.